paan yoo xam ni ay dundu weer moo ci nekk tey 60 paan dañu fas yéene joxe euh, te am na seen ay yoo xam ni ñoom ñoo ko xam ay weccit yu ñuy làqar ci entre ñoom euh, di ko dimbalante donc je pense que initiative lu Médina soxla Médina li mu soxla mooy unité Médina li mu soxla mooy ñu teew li mu soxla mooy ñu dimbalante mosuma manqué benn initiative bu jigéen yi ma àndal yor te nekkuma seen ginnaaw donc maa ngi seen ginnaaw maa ngi leen di jàppale ñoom am initiative boo xam ne dañ koy rafetlu parce que lu am njëriñ la dañ leen di jàppale te dañ leen gën a jàppale parce que loolu lañ diggee sunu ànd nag du tey sunu ànd 2008 la 2009 2010 ba tey la 2020 euh, te gis naa ni ubbeeku nañu yaatal nañu te ñu ngi leen di fekk si donc may wax waa Médina ñu leen uh, ànd rek am solo nekk benn moonuwaay. lu ñu fi yàgg di def la ndax def nañu huit édition ñu ngi ci neuvième édition bii ñu nekk mooy neuvième édition donc dañuy joxe soixante calebasses calebasses bu nekk dinañ ci toftal uh, sac de riz cinq litres ak cinq kilos de sucre kon ñun lii bañ ko daree def ba tey dellooguñ ci ginnaaw. ndax sunu Médina gi moo ñu ñor ñi ñu koy defal sunuy mbokk lañ te sunuy mbokk kese la ñu dëkkal ñu ciy sant yàlla nag di ñaan yàlla yàlla nañu ci yàlla dimbali ba ñu koy def toujours muy muy calebasse de l'émergence boo xam ne dañu santoon pour ñu def ko te bi ñu koy def ba tey gisaguñ ci dellu te ginnaaw ndax ñi ñu koy jox ñor nañ ñu sunuy mbokk lañu xàjjat law ñu kenn nag moo tax loolu moo tax ñu di ko def nag di ci sant yàlla bii nag dafa spécial ndax de bii mooy neuvième édition te dañ ci accompagner boole ci di ci joxe waale masque pour mesure barrière yi ñu ci joxe masque di ñaan yàlla mbas mi jeex si ba faw ndax démb rek amaat nañu kaa ndax man CDS Médina maa ko yore kon ñun xam nañu mu ngi fi wala nekku fi looloo tax joxe woon nañu masque ndax ministre Seydou Gueye àndoon na ak croix rouge ak képp ku nekk Medina nag amul xaaj ak seen boo ko Benno Yaakaar joxe fépp masque ànd ko croix rouge ba ministre de la femme wootee mooy masque yi malay wax yóbbu nañ fa ay masque dem nañu ñëw nañu delloo nañu ay masque ñu séddale ko monsieur le ministre ci commune bi ak li mu defoon joxe nañ fi 20 000 léegi ñu ngeex 7 000 masques. yu ñu war a joxe ndax mbuus yi yëpp masque la carton yi masque la moom la ñu nar a jël jox ko nit ñi jigéen ñi bii jigéen ñi dong lañ ko jagleel ñoo ko moom ñu war leen ko jox ñaañal leen yàlla mbas mi jóge fi ba faw